Thierno Alassane moom turam maa ngi ko jëkk a dégg ci suma rakk ji ñuy wax Moussa Tine waaye xamante moom ñu ngi ko def euh, vers les années vers deux mille deux mille huit deux mille neuf mooy jamono yi nga xam ne ci la ñu sos alliance pour la république lañ miinante boobu moo nekkoon le coordonnateur de des ci boobu lañ xamante li nga xam ne nag mën naa ko wax ci moom ci lu gàtt rek mooy Thierno moom kuy wut nit ku baax mooy leader politique bu baax boo ko amee bu amee Thierno téye ko. soo ko amul itam na nga wuti nit ku baax gi nag fi ma ko tër mooy benn Thierno jàng na bu wóor a wóor a wóor na xam-xam bi des engagement politique am du lu xëyut def ko yàgg na yàgg na ci euh, beneen bi ci des mooy nit ku am éthique la maanaam nit ku am ngor Thierno néew ma lu wax dëgg la waaye lu wax rek gëm na ko du na nax nit ñi du wax nit ñi lu mu gëmut Euh, maintenant anecdote xëy na bu ma ci mën a raconter mooy li ma wóor mooy jamono yi ñu nekk di sa créer alliance pour la république li ma seetlu woon mooy. no Thierno san Sall day euh, nitu Thiès la euh, doomu Thiès la comme man bi may xam al Alassane Sall boobu gisuma ko xawma woon jëmm ji ndaxte ñun at bi ñuy yegg si lycée Malick Sy nga xam ne moom foofu la jàngee ñun at boobu lay lay dem. Euh, fekk moom moo nekkoon euh, euh, président foyer lycée Malick si waaye dafa bàyyi turam bàyyi fa tamit jaloore yu bëri pas seulement parce que dafa nekkoon président foyer yoroon foyer bi yorin bu rafet bu ñëpp doon joxe en exemple waaye dafa fekk tamit ne dafa nekkoon nit bu mënoon a jàng nangu woon a jàng tam nekkoon nit ku brillant de sorte que dama koy wax di reetaan bu ñu doon yedd ñun bañ doon def grève Euh, parce que ñun génération bu ñu bokk génération euh, euh, boo xamante ne la idéologiquement génération bu marqué la génération ajustement structurel et autres dañu doon wax naan mais da ngeen a ni a mel ni Thierno Alassane Sall ndaxte moom tellement dafa nekkoon un bon président du foyer mais dafa nekkoon aussi un étudiant un élève brillant c'est-à-dire jàll brillamment le bac euh, fii mention bien moom ak génération effectivement ay ñoom ay euh, Aïda la ay yooyu ñoom lañu fi ñoom la ñu wutu ci euh, ci lycée Malick Sy dafa amoon projet wu bind benn livre xam naa bu ngeen ko ci laajee dina leen wax si lan la bëggoon la la bëggoon la bind livre bi moo tax par la suite effectivement c'est tout naturellement que la entrée si champ si politique bi alors euh, damay laajte wu souvent ndax bokkuma sax si ko pousse mu dugg ci biir politique parce que am benn jamono joo xamante ne effectivement on a eu benn instabilité ci wàllu euh, ministère des transports wàllu ASECNA ba mu jógee postam foofu ba mu fay jógee jigéen ñi sargal ko bu baax ndax liggéey bi rafet bu mu fa liggéey euh, ba mu ñëwee nag di ma ñu siy waxtaan naa moom ma ne ko yenn saay nag jaar na ngeen tam ñi nga xam ne yéen a mën ngeen di interroger wu un peu si seen bopp. te boobu laay doon wax sax naan le Sénégal n'était pas malade des mains médiocres qui font de la politique il est malade des mais expertes qui n'en font pas euh, période boobu non seulement amoon nañu instabilité euh, ñu jëlee ko fa waaye conséquences yi dem ba terrible ndaxte euh, après voir bi gestion voir pays yi nga xam ne ñëpp dañoo dépendre ci Sénégal ku nekk mujj nangu gestion espace aérien parce que ak simplement dañoo amoon na instabilité wala après nag ma di ko wax naan ko yow nga xam ne da am réputation Euh, nit ku brillant tey ku am réputation contraire moo la jële tey si sa ministère et le fait que ñu jëlale fi nga euh, ASECNA plutôt le fait que ñu jëlale sa poste tax na Sénégal perdre euh, leadership comme en matière de transport aérien dans la dans la sous-région donc effectivement après bi la ñëw dugg si politique muy nag nit bu am constance nit bu am rigueur et nit boo xamante ne aussi il a des valeurs extrêmement solides aussi bien si ay relations sociales am mais si wàllu gestion am si wàllu def politique am ak euh, ak yu mel noonu